mbokk jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu xaq di leen balu xaq daje woon nañu fi daaw ànd ak wér ak tal yàlla ci mbaaxam may ñu ñu ñot ñotiwaat ba agsi fii toog ngir fàttaliku démb yonent bi دافا جانغا تي ان حسن العهد من الايمان سم كل لي تي نغور لو بوك مو تخ ني باي سوني ايتي باي سوني سوخلا فك سي نغور كو تيدي كي دي باي في تي لو خامي امانه في نكو وون في نه يرين تي بي ديكا يالا ني جنال mu ñëw ba buntu Makka ni yàlla yan yaa ngi may génne ci dëkk bi ma gën a bëgg xoola ak ma fa daj kon dugal ma ci dëkk bi nga gën a bëgg yàlla dugal ko ma ci góor beeg bëggoon dëkkam waaye li gën a attiré nit ñi mooy son esprit de partage كان يمتاز بروح المقاسمة والمشاطرة والمناسبة Il était animé par un esprit de partage. Il y a yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. dafa daan dem bu tukkee ba ñibbi si day jaar kër Fatima ndax xaritam la. doomam la waaye xaritam waxtaan ak moom naan fa ndox su ko dem benn yoon mu jaar fa dugg. toog tuuti rek daal di jóg dem woo benn waaye bu wax Ibnu Rafia mu ni ko sam papa dafa daan def bu tukkee bu dellu see ci man lay njëkk jaar ma may ka ndox mu naan ñu waxtaan mu dem tey nag dafa dugg rek dem waa lu xew mu dem laj ka yeneen tigi ñi ko boo demee ni Fatima dama mer ah gis naa ko mu takk benn rideau bu am ay couleur ci bunt te rideau bu am ay couleur kenn du ko takk ci bunt bunt bi ngay duggee ñaareel ba itam gis naa mu takk benn lamu or ci loxoom te waa suuf fa ñii nekk ak man dëkk Madina bu nu añee du ñu reer bu nu reeree du ñu ndékki warul ci Fatima muy lakk takk lamu or te njabootu yàlla gi di xiif kenn mësul gis yonent mu dal yebal bilaal mu jox ko ni ni ni boo demee ni sama baay ni ko bi tekki naa ko lam bii joxal ma ko mu agsi rek yonent bi ni bilaal fabal alal jii lam jii nga jaayee ko ca marché ba lépp lu corote waa ahlu suffa yii nga xam ne ñoo dëkk ñoom bu nu añee duñu reer bu ñu réeree ñu ndékki demal jënd ñam bu jox kii ku la ni sama waay sama waay jaa ngi nii daaka nangu ku la wax ni la ëllëg bu ñu taxawee ci kanamu borom danañu jàpp ci loxoom ci suñuy loxo yóbbu ñu aljana daaka nangu waay di xiif ak di mar na ñëpp di rafet na ñëpp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Fatima tekki lam jaay waa muhaajiriin ca Makka ñëw Madina fekk fa waa ansaar ku nekk fat nit ci sa kër di ko dundal mu metti lool ba jamono neex ci waa muhaajiriin yonent bi woo leen boole yëpp toog Abdullah ibnu Samita nga fa Muaaz ibnu Jabala nga fa bokk ca waa ansaar yonent bi ni gis naa seen taxawaay dimbalu ngeen nu ba sonn def ngeen bu nekk ba sonn léegi nag dañu bëggoon génn seen kër yii ñu nekkoon ku amoon benn kër bokk nga kaa ñoom ku amoon ñaari kër joxe nga benn ba dañ leen bëgg nag ngeen bàyyi ñun waa muhaajiriin ñu dëkk ci mu dëkk nekki nekki bu baax Abdullah ibn Samit yëkkati loxo bi mën naa wax ak yonent bi lay dégg mu ne ñun de dañu bëggoon bàyyi waa muhaajiriina ci suñu kër yi ñu dëkkoon ak ñoom alal ji nga xam ne ñoom ñoo ko moom ñu bàyyi kat ñoom lañu ko tëni ñuy añ ci suñu añ di reer ci suñu reer ba sa kanam xoolal ma bi yow dem nga ba jekk ñu ni mukk bàyyi leen nu mu meloon toog ci suñu kër yi te ñun suñu alal ñu bokk ak ñoom الله يرنت اللهم ارحم الأنصار وارحم أبناء الأنصار وارحم أبناء أبناء الأنصار يلا يلا نجي يروا أنصاري نخبم متين عن يلا يلا yal دوم nga yërëm يلا يلا ansaar yàlla yal na nga yërëm ànd ñun ak loolu ndax ñu miinoon loolu boobu taxawaay daan séddale daan bokk daan joxe di nëbbu te kenn du ko xam Golbert nekk nag ci taxawaay boobu di def te kenn du ko xam bëgg dëkkam lool fonk sëriñ ci lool ma xam ka lool lu mu am bokk na kaay ku am problème ci polis mooy jóg taxaw kii kay bu yeewu suba dellu gannaaw lu waay amoon waroon la ko bàyyi lu fi doon yendu sax Golbert jar na ko ndax gisaguñu fi gol beneen Golbert Golbert biis kenn gisagu ko fi ba Golbert demee ba léegi Golbert biis kenn diggagu ko fi woote defar dem police ba dem gendarmerie dimbali ba loxo ndeyjoor la muy jox la loxo càmmoñ du ko yëg gisaguñ ko de ko ñu amul waaye dañuy gis ñu ko ku mel nii war na taxaw ñu yend fii ak moom wax ay jikkoom bàyyi yàkkamti bàyyi kër kër ji parce que wax dëgg yàlla yeneen ko deseel na mu def ci ndar loo xam ni nit ku nekk war nga ko mën a roy yonent bi wane na taxawaay bu ne ci seetu ci yëg sa dëkkandoo ci yëg sa nawle ci yëg sa bokk loolu yi nag ci dëkk bi dafa xaw mel ne mi ngi wàññi ak na mu meloo barewul woon ay place yu ñuy liggéeyee waaye sutura yàllaa ngi fi mm-hmm. ku bàyyi ba guddi mu fëgg kër dugal na moom yooyu jëlal day tëj ak bunt bi doo xam kana ndax yonent bi de joxe balaa muy baax bu ndeyjoor dee tàllal càmmoñ ju yëpp la mu jox lan la tey nag dafa am benn feebar bu ñu dugg seetaan bi dëmm bi ku ne yaa ngi dëmm sa moroom di wax sa bopp rek le moi est haïssable. On dit le plus souvent que le moi est haïssable. Je ne sais pas si c'est du français ou pas. Égoïsme bob qui relève du moi. Tout on ndar. seen doom yi du liggéey waaye yàlla dafay di suturaal ba boo ñëwee daa fa fekk reer daa fa fekk añ boo ne asalaamaaleykum taalibe bi ni ala rabbi naan ñu ni ko raxasoo mu raxasoo mu lekk ba suur ñu tibbal ko potam ni ko aj moo tax teraanga daaw fi jóg liggéey barewul woon waaye barke fi nekkoon daa gis dëkk boo xam ni tubaarkalla ñu ngaa kurkur bi liggéey waaye barke amu fa ndar liggéeyukaay barewu fa woon waaye xol bu joxe xol bu séddale moo tax yàlla indi fi barke noonu la Golbert meloon nag bu nu ñàkkee jëmm ju mel nii ah foog nag ñu toog waxtaane ko foog nag foog nag ñu toog ñu toog nag roy ko ndax gisaguñu ko roy Golbert waxuma amul de waaye dañu gisaguñu ko mbaax googu Golbert def moo tax yàlla wuutal ko ci ay doomam yi doomam yi moo nañu nekk ci leneen nekk feneen xel mi nuy bi yàlla inspiré ba ñu ñëw fii yàlla waaye itam liggéeyu Golbert la ndax yàlla bëggul liggéey bi niil ndar tey mën na damu ndax te ndar tey mën na tiitaru ndax am na doomam boo xam ni mën na il est exportable Golbert il est exportable mën nañ ko yóbbu fu ne mën nañ ko wane fu ne ñu ni kii mooy ndar te buñ ne mooy ndar danga ko nangu Saint-Louis midi yi mu daan def nit ñu sonn ñu mu daan dimbali dem ci hôpitaux yi dem ci tubarkalla macha allah te nii la Abu Bakar si radiallahu anhu daan def nii la Ousmane ibnu Affan daan def waaw Ali ibnu Abi Talib moo gën a néew wërsëg ci saxaaba yi am ñi nga xam ni wax naa la moo leen ah ahlu suufa bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu ndékki ñu ngi dëkkoon ca Madina yeneen bi lu mu am yónnee fa Alin Abi Talib nekk ñoom nekk ñoom ba bi mu génnee àdduna waa ahlu suufa yëpp génn di yuuxu di ut seen karam ñun li li xew ni ñu tax ndax Alin Abi ñàkk nañ suñu baay te Alin moo gën ñëw sa waaye ñett ñu mu am fab dërëm ba jox leen fab dërëm ba yóbbu kanam واهل السكوت ين لوخو ني كي مون دون سونو باي سونو ري داو مانك سونو ان مانك تي امول دارا تي لومو فور دوكو نيو مو امول لي ما يسمى باللغه العربيه الفسيحه كان يمتاز بروح المشاطره والمقاسمه والمناسبه اسبي دو بارتاج سي سي كي كاركتيريزي فين فيلا اسبي دو بارتاج Et ça a tendance à s'effriter, à disparaître. dans le de bu a occasion pour nous de et spécifiquement Goldberg. Goldberg, du sëriñ la nous son bonhomie l'a poussé jusqu'à cet extrême humanisé euh, de de l'humanisme ومن لي بقع ما فبإمكاننا أن نتبجح وأن نتغنج وبه أن نتباهى بين تآلف الأمم كم من يقول كأمين il y a bien lieu de se targuer à travers le monde Colbert dafa baax baaxu biir baax baaxu biti motax tax bi mu génnee àddina bi mu gisaatee doom bi ñëw man li mënul manqué il faut am ku continuer liggéeyu Golbert il faut am ndax té li ndar bëgg ñàkk Golbert ak té di diko doxal naw yàlla moom kenn te loolu du liggéeyam nekkoon ci rajo waaye allié liggéey yépp ba ñëpp yëg ko hôpital pharmacie fépp góor benn était présent nit ku mel nii nag wax naa ko sànq la répétition est pédagogique nit la koo xam ne ñun dañ koy tiitaroo te bu nu fa yem nanu ko royee na loxo yi di dem ak ñëw nañ di dimbaleen di waaw boo amee mag ji dañ daan am ñetti dërëm fag dërëm ba fëgg dëkkandoo fab seen loxo jox ko dal guddi bi dem yonent bi ne sarax si gën mooy bu ndey joor day joxe càmmoñ du ko léegi nag les temps ont vachement changé ku nekk sa bopp sa renommée sa nganda ak na nga day rek moo tax xoolal autant de ñuul autant yàlla ñuulal la autant au lieu d'émerger tu submerges yàlla yàlla loolu du ko nangu ñi fi bëggoon jékki-jékki fab seen alal joxe fu ne ñu dem fa à la à la fin de leen mujj faté. ils ont été aux oubliettes ñii nag di joxe ba ndeyjoor ba muy joxe càmmoñ du ko yëg yàlla def na ba ñëpp xam na leen Colbert ba muy def loolu kenn yëgu ba muy def loolu kenn xam ko ak yeneen yu kenn mënul te tey jii ñoo ngi nekk lu baaxam parce que un bienfait n'est jamais perdu ku mel nii nag booy toog di déglu jotaay ba loo yàkkamti foo jëm addina bii doo ko lekk fi nga ko bay ñam lu mu rëy rëy ñetti tibb nga ciy tibb suur dem loolu mooy sa wërsëg keneen tibb ca moom tam dem waaye am na loo xam ni war na ëpp loolu mooy def lu baax dimbalante say bokk say doom doomam yii de sawar nañu ci golbeer ndax fa leen golbeer teg def leen ay nawle ànd ak ñoom ànd bu rafet wala leen yoon ba ñoom ñii ñu ngi wane yoon yal na yàlla saxal ci loolu voilà le propre de Saint-Louis moo tax man la yonent bi amul morom yonent bi amul morom boo nanguwul yonent la sax man nga nangu ni moo fi gën wa innaka yàlla ni ko inna moom dafay dëgëral wax ñi jàng arabe grammaire inna ça renforce la phrase wa innaka yàlla daf koy xool ba yàgg wa innaka dëgg dëgg yow dañu koy firee deug deug mena yàlla dafa jaaxle wa innaka deug deug dëgg yow fu nek lambatu na la fa waye rek tu es resté toujours la même wa innaka deug dëgg yonent ci la ala bu jikko yëpp ñëwoon yéeg ca kaw yow da nga ñu toga ca kaw ñu fa tok wa innaka la ala xuluqin fu ci ko yow da nga wess mbok nañu delu si waat loolu waay di suturaalante waay di dimbalante waay di nekkante benn di yëgante loxo di dugg ci kër te kenn du gis kalam ka nga ni kër jël mu tëj nga ndax xam nga tey kër gi tey lii dox mag ñi daawul liggéey waaye barke yàlla moo daan wàcc ci ñoom tey ñuy liggéey ba weer dee boo demee fayu xaalis bi boo wanee sa bopp gannaaw xaalis ba jeex barke nekkatu yàlla dëgg mooy yónneeku rek mag ñi daawuñu woon liggéey waaye barke fi nekkoon xamuloo moo tax ñu naan ndar joxoon ñu cër joxoon ñu ittee sëriñ yi di daal di nekk di jàngale ñu di dimbale leen jox añ ak reer yàlla fa teraangaam def ci ba ñu teggee suñu loxo yàlla teg di loxo moo tax dellusiwaat fii. دي واحد على كم جدتي فمن الواجب بمكان لو ما تروح تيتم فنو تيتا تروح فنو جمك لو ليا كم تي كي دف لو باخ وات في لو خمني واي مو خمني نار في يوبا لا نار كون وات لو ديب لو ام فنو بغ ديب نيو باي لولو تا توك في دغل سنو واي ادو من كو روي نيو تام فنو جم كي ادنا fi nga kaa wàccale moo ko ba nga jëm suuf sa nga jëm waaye am na loo xam du fi réer suuf du ko lekk muy lu baax suuf ma ne nekk jëm mën na nekk yax waaye jëf du baax suuf du ko lekk ila qiyaami saa yeneen ci bi bala mu daan añale sonn wala mu daan ree sonn wala mu lu ñëw ci këram bu xoolee xam ne am na ko soxla mu woo la jox la ko te kenn du xam صلى الله عليه وسلم نتنا نستعمل أن نتنا نتوفي مسلم وإنما نبقى أهل الصفة أهل الصفة أي من يقول لي مدينة يريني صلى هذا بين الصلاة أدن أدي طالب كانت بين خليني جلنا أدنى وخنا على كم وأهل الصف يجوا دي جوي دي بودي سلكروا من وقالوا خير بني كي مدن سنو باب من دا جوخ أني ak ree ak ndékki abu hurayrata dafa ñëw ci jàkk yonent bi ñu leen lu ngeen di toog ñu ngay siddali ndono yonent bi gaa yi dox ku ne defee ne xaalis lay wax mu di àddina fëkk da leen de bokk sa bopp bii ma gis ak sa lekk yow kenn yonent bi ne góor bu baax warul lekk moom kenn bopp bopp sa bopp bii ma gis ci Madina ku nekk sa bopp ak sa kër ak fa ngay liggéey yonent bi wala woon woon nii de nan delloo si doom doon yonent bi yonent bi bu añee du reer ba yàgg ñëw ni Aïcha lu lu fi am mu mu ni woor naa woor naa bokk laqat suuf du yow am ah, fi de yonent mu ni woor naa yàlla di nga xool

boo waxee gauche ñu wax droite boo jëmee fii ñu jëm nii yenent bi moom ñoom moom ñoom ba ñëpp taxaw ni achadu bu ko defoon Paris day sonn day nopp day yomb bu ko defoon Allemagne day yomb waaye si désert nga fekk fa dañoo xam ni lekk ñu naan ñu xiifu ñu nga leen di wax yàlla ak yonent ak façon ba nga koy waxe ak jarga ak teggin ka nit saaga na la nga wëlbatiku nit lu lay defal nankat moom yonent bi moo tax yàlla xool ko ba yàgg ni ko wa inna inna c'est un particule boo xam ni boo ko jàng arab day wax ni day nasab isim rafa xabar boo nee muhammadun nabiyun inna nag bu duggee rek soppi muhammad inna dëgg dëgg ngay wax muhammadan muhammad mii moo tax yàlla xool ko ba yàgg wa innaka dëgg dëgg nag yow sa waay

wal muqaasa l'esprit de partage bëgg ñàkk ku nekk da nga tëj si bunt ala rabi ngeen ko acca doxal dara amatu yaa ngi tiim ñam di lekk nga war a ni ko raxasul ba set nga dugal sa loxo loo fi fekk nga lekk la ca des bi dafa la sa nga dem sa doom ji kenn xamul fu muy mucc ëllëg yàlla dina seetaan xoolal ma kii rek diisal loxo ji woyefal loxo kii di seet kii na muy jëflanteeg kii yow nga leen ñëw xaat daal di jëf firaw ni ana rabbukum al aala le moi et Aïssa al ana manquut le moi et Aïssa yàlla rek moo am sañ-sañ wax ni ana waaye nit kuy dox dem ba bew naan xam nga maay kan yàlla di la yow yow yàpp ak dex yàpp ak dara rek ak yàq من المولى العلي القدير أن يعيد إلينا وإليكم هذه اللحظات الرمضانية وأن يعم صاحبنا الذي من أجله نتواجد هنا المتمثل في الحاج بولبريان أن يعمه الله برحمته الواسعة وأن يلحقه بفسيح جناته وأن يجعله مع الذين يقال في حقهم هذه أبواب الفردوس على مصراعيها مفتوحة وغير مرسلة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين والحمد لله آمين الله الصمد لم يجد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين قل أعوذ برب الفلق آمين من شر غاسق إذا وقب آمين ومن شر النبافات في العقد آمين ومن شر حاسد إذا حسد آمين بسم الله الرحمن الرحيم الناس آمين فأت الناس إله الناس آمين من شر الوسواس الخناس آمين الذي يوسوس في صدور الناس آمين من الجنة والناس آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمين يا رب العالمين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمين